آمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة آمة mbokk tey am nga fi ñaari jeune homme yoo xam ni ñoom nag ci wàllu xam-xam la ñu ñëwee pour ñu weccante ci xalaatu téere yàlla bi ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci fiq jaamu yàlla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 إن الحمد لله نحمده الذي جعلنا معشر الأمة المحمدية خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بفضل من أرسله رحمة للعالمين وأثنى عليه بخوله وإنك لعلى خلق عظيم mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu man maa ngi tudd Alioune Gadiaga nekk jàngalekatu arab ci boori Parcelles Assainies ak Cambérène. macha allah. ok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 di jàngale tabaarakallahu géej waaye Gueule-Tapée 2 institut islamique Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. ah seen seen institut islamique bi turam bi neex naa. Mhm. yonent bi ngeen ko tuddee. Mhm, macha allah sallallahu kon ci téere yàlla bi la ñuy commencé. Mhm. Euh, sëñ Aliou. auditeurs yi nga xam ne ni RTS rek la ñuy seetaan. dañoo bëgg nga laabiré leen dara. lu lu leen di jariñ waaye li ngay wax nag. tegal baaraam fii ci téere yàlla. Mhm. incha allah incha allah bisimilah. tabaarakallaahu xam naa suñu laaya biir bu njëkk rek. day nekk aaya bi nga xam ni yàllaa ngi ñu koy fàttali ca suuratul mulki. Mhm. di ñu xamal ni kat tàggatal nañu suuf si yenkewal nañu ko. ba ñu mën koo jëfandikoo man cee wut suñu wërsëg ci fu mu ñu mën a neexe ci gox yépp mhm. moom lay wax ni huwa allazi jaala lakum al arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min risqihi wa ilayhi nushur ndax am na nu mu ko doon defee mu nekk weñ bu jamonoy seddaay ñëwee duñ ko mën a utiliser kazalika bu jamonoy tàngaay ñëwee fa tabarakallahu kon loolu rek ab tegtal la ci ni kat war nañoo mën a aay bi aay bu nga wax tekki waaw yàlla dafa ni defal naa leen suuf si mu nekk lu lu waaw ngeen mën a dox mën a tabax mën a def lu ngeen bëgg a def ci gox yépp fu ngeen fi mën a fu ngeen fi bëgg dem rek. Hmm. waaw ci mboolem àdduna bi. Hmm. dëkk yi la jege wala dëkk yi la sori. wala daal fépp daal ci kaw suuf. ci naa kii bi xaar. lu ma juumul ma wakkulu mi rizqihi. mooy. Hmm. fam suuf fi maanaam kii bi dox leen ci kaw suuf. dem dajeeg samay xéewal. waaw voilà. loolu loolu sax yow sa aaya boobu jar na fàttali parce que loolu day wane ni yàlla buggul toog muy dox muy dox yàlla dafa bugg ngay nga yëngatu di dem mhm. di dajeeg wërsëg yi mhm. waaye buggul nga toog ni rek di xaar wërsëg temps yi maa ngi dégg média toog muy dox bi aaya bi nga dëgg ah <laughs> aaya anti toog muy dox fam suuf fi maanaa ki ba mhm. leer na voilà dox leen dajeeg affaire yi ah, bu leen toog di xaar mbokk bismillah waaw mbokk yi tabaarakallahu ginnaaw bi ñëwee di leen indil aaya alquran waxu yàlla subhaanahu wa taala bi mu doon wax dafay ajowaat ci mbokk mi li mu doon wax rek muy dox def activité pour mën a jariñu ñi ngi koy yóbbu ci surat Maryam nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala bi muy wax ak Maryam naan ko wa huzzi ilayki bi jis'i naxlati tasaqat alayki rutaban janiya wa kuli washrabi wa qarri ayna إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا yàlla subhaanahu wa taala da doon jàngal sayyidatuna Mariam. pour wane ni ko faaw nga def effort. mooy li oustaz wax léegi. parce que bi mu ko nee dinaa la mën a ñoralal tàndarma nga fekk ëkku tàndarma boo nga xam ne bu dee la woon. nga teg ci sa loxo mu jebbi léegi. ñor léegi yàlla mi ko ñoral mën na ko wàccewaat. man nako tabal ci souf mu jël ko utiliser ko waye da koy woné ni faaw nga def effort moo tax da ko ni huzzi ilayki bi jidi ay nala la xëccal ma ëkku tàndar manam ciaru tàndar bi geusamal geusamal pour mu wàcc ci souf nga man ci jëfëndiko huzzi ilayki bi jidi ay nala su ko tasaqatu alayki su ko defee tàndar ma jooju di rot ci ci rutaban janiya su ko defee nag lu toy waye nak fekk nak bi nga koy utiliser dang ko wet ya ko dagal sa bop voilà c'est ça. daal di ko teg nag kuli washrabi. kon yàlla subhaanahu wa taala saa yu indee kulu da cay yokk washrabu. waaye nag am na lu mu lay wax kuli washrabi. waaye nag wa qarri ayna lekkal naan waaye nag dalalal sa xel. kon nekkate nit dina tiim dab di ca lekk te fekk na suurul la ko tee suur nag mooy xel mu dal la. ndax lii suural nit xel mu dal lay nekk mais du nekk lu mu utiliser.

defal effort na gësamal <laughs> doo toog rek muy dox gësamal ndaw si mu wad mu for defar kii lekk dalal xelam voilà mu ngoog kon euh, yàlla daf bëgg effort yàlla bëggul bëggul bëggul lu yomb ko loolu leer na dem nañ léegi ci waxu ki yàlla yónni woon téere bii muy sallallahu alayhi wa sallam euh, mbokk Aliou loo ñuy jàngal ci njàngaleem sallallahu alayhi wa tabaarakallah xam naa moom it xadis bi ñuy indiwaat rek comme fàttali. dafay nekk xadis boo xam ne dafay confirmer waat aaya bi ñu indi woon. Hmm. te mooy bi yonente bi sallallahu alayhi wax ni. am na ci bàkkaar yi yoo xam ne du julli moo koy far wala koor wala aj wala umra waaye def yitte gu nit ki di def ci sàggu lu mu wërsëg lu mu lu mu dunde ci wërsëg. Hmm. mooy far yooyu le bàkkaar ba waxaale ci ni sax ku ci mel ni ki yonent yàlla daawuda moom musul liggéey lu mu. musul dunde lu mu liggéeyul ci loxo waaw inna mina zanubi zanuban la tukaffiruha salat wala siyam wala hajj wala al umra walakin yukaffiruha al humum fi talab al maisha wa ma akala ahadun qat خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن النبي الله داوود كان يأكل من عمل يده تبارك الله لو نان حديث بوبو لو نكو تنكلي واو waaw خامني دال كون ميغي نونو mi ngi noonu liñ ci mën jaamu yàlla rek doyut waaye tamit liggéey ci jaamu yàlla la bokk. ko daal nit ki. Mhm. li muy dundee. Mhm. daf ko war a waaw. après bu ñu exemple mhm. yonent yàlla waaw ba pare it am na beneen exemple boo xam ni saxaaba yi ñoom ñoo doon tagg benn waaye ci kanamu yonent bi ci mën a jaamu yàllaam ba ñu paree yonent bi laaj leen ni leen kan ci yéen moo koy dundal cité ay mbir yu bëri laaj leen ni leen kan moo ko koy defal saxaaba yi ni ko xanaa ñun yaa rasulallah mun leen yen ñëpp yéen a ko gan yéenay sangam. voilà. voilà yéen yéen moom tey dafa mel ni da ngeen ñëw pour génn pour toog muy dox ngeen di xeex. waaw loolu <laughs> ci la loolu doy na dalil. Uh-huh. Euh, mbokk Sow. Uh-huh. Sow sa fi mu génn baax na de. macha allah yaa ngi encouragé gars yi ci liggéey. Uh-huh. ñàkk jariñu jëfu jël. voilà mu ngoog bisimilah. mu mel ni tabaarakallahu suñu xaddi suñu xadis dañ koy jëmale ci li mbokk mi daaneel rek. waaye nag dañ koy jëmale ci doomu aadama ni mu fuqalee ci li nga xam ne mooy wut-wut mooy am-am ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni doomu aadama su ko yàlla defaloon aw xur ba mu fees ak alal dina mébét yàlla yokkal ko ci beneen xur muy ñaareelu xur waaye yàlla subhaanahu wa taala mi ko may ñaareelu xur su ko may ñaareelu xur itam mu ni kon ñetteel la bëgg kon maanaam nit ki lim ci jublu mooy su ko yàlla mayoon benn magasin ba mu fees ak xaalis teewul dina dina amaati yéene am deuxième magasin waaye su amee deuxième magasin itam dina mébét am troisième magasin mu ñu nag kon doomu aadama bi lan moo mën a fees biirom mhm. ak turaab kese mooy suuf mhm. mooy suuf kese suuf moo ma maanaam nit ki bu ñu demee daal ba jël ko suur ci biir suuf su baawam dina regg moom ah. ndax coow li li muy bari bari bam ñene ca bàmmeel bokkuñu ci suufu rek moo mën a fees biiram waaw moo mën a fees biiram yonent bi coow li li bari bari ña tëdd ca bàmmeel bokku lu ca leer tabaarakallahu kon dañ koy yokk ci waxam boobu mu jàngale foofu mooy mhm. nit dafa dafa du doyal mhm. lenn rek mu ne moo mën a fees biiram bi mhm. mooy suufu bàmmeel ko bu ci bàmmeel nag ba ba biir bu fees ak suuf boo nag ci ci danaa nem loolu am na benn am na benn waykat ci jamaïcain yi bu wax ne when you get what you want you want more whenever you get what you want you want more saa yi boo gisee ba am li nga bëgg rek yaa ngi bëggaat leneen mm-hmm, mm-hmm. doomi aadama moo mel noon loolu leer na dem naag yéen ci fiq euh, jaamukaay yàlla mm-hmm. euh, Aliou ñu ngi dugg ci euh, génn nañ ci weeru koor yi ñu ngi dem ci lu mel ne ay tabaski wala lay me noonu tabaski lan lan mooy kiyam ateem tabaski waa moom day ci ci ci charia sunna mu akkada la mooy waaw mooy sunna soo xam ni suñu feddali la. waaw waaw maanaam foor na fooraay goo xam ni li ko xaw tuut mu nekk farata bariwut. Mhm. waaw yonent bi daf koo def ba jóge fi te bàyyiwu ko. sallallahu alayhi wa waaw boobu àtte la amee. mooy sunna bu ñu feddali sunna waaw. waaw mhm. ci ñu ne farata. àggul ci dara farata mhm. sunna la wax yonent da ko feddali. ku bëgg a dund da nga koy def mm-hmm. loolu la jeex na mm-hmm. euh, Serigne mm-hmm. léegi dañoo bëggoon nga wax ñu xar xar mu mën a tabaski la wala boo nga wax ñu euh, am na loo xam ne bu nekkee ci xar du mat tabaski pour mu gën a gaaw boo ci jël baax waaw macha allah xar yi mi nga xam ni wala gàtt bi mën a tabaski ndax suñu ne xar mi mën a tabaski dafay mel dañuy tënk tabaski ci xar dong allahu akbar donte nag euh, bari na léegi ci jamono ji nu toll nit ki dina mm, bu jombaleel boppam tabaske bëy te pourtant tabaskee bëy boobu moo ëppal tuyaa ba yàlla nga tabaskee gileem kon li nga xamante ne si moo mën a tabaski mu dib gàtt bu dee moo xam bëy wala wala xar ma la gën gaa néew dina mat am at moom dina am at gën gaa néew bo demee ci borom xam xam fiqh yi nak waxtaan wax bari na ca ñi ni juroom ñetti wër sax su ko amee mat na tabaski. waaw léegi yan yan moo mën tax xar xar moomu ngay tabaské wala gatt ba du bax waaw gatt bi nga xam dang koy tabaské mo xam nga xar bi la wala bëy bi la. Hmm. su laggé laggé bu lèr laggé bu lèr ben moy tank bi dal da koy sox sox bo nga xam ne ku ko seen xam ni li lay sox ben kon ko moma gatt booba du man tabaski. waaw ñaarel ba moy bu fekkee ni ben beut ba du gis. ñaar maanaam dafa nekk awra mooy patt la benn bët ba rek mooy gis beneen ba gisul boobu itam na bokk ci nga xamante si du mat tabaski mm-hmm. beneen ba mooy boo nga xam ni be jën ba daa damm béjjën ba dafa damm ba pare nag di naaj ci wéragul ndeysaan waaw su fekkee in kaana yudmi bu dee naaj mais su fekkee ni wér na kon dina ma tabaski dana baax tabaarakallah kon leer na mm-hmm. kon yéen ñooñu di bëgg a jënd tabaski euh, ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax mm-hmm. euh, incha allah yooyu ay tegtal yu baax kon dafa mel ni dañoo yem rek na euh, xam naa imaam Aliou sànq aaya bi mu andi woon rek mhm. dafa dese dindi kii bi mhm. au te côté bu am solo la ci mhm. mais dem nañ ci deuxième tour incha allah fi ma jaaroon lay jaaraat imaam Ali kii de dañ bëgg nga baaxaat ñu ci dara waaw alquran ba tey bu ñu demee ci suratu safi waaw yàllaa ngi ñu cay jox benn tegtal boo xam ni ñi ko gëm la ko jox hmm. te mooy commerce la boo xam ni yàlla ne bu ngeen bëggee commerce moom du commerce boobu bu ko commercé du ngeen perte mhm. mu mel ni dañ ko ko laaj mu ni mooy da di fexe ba gëm yàlla ak yonentoom mhm. te fexe jihaad ci yoonam ci seen alal ak ci seen bakkan mhm. su ngeen ko defee day yàlla dina leen jéggal seeni bàkkaar te dina leen dugal aljanna mooy aaye ba wax ni yaa ayyuhallazina amanu هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم آه، ذلك خير ذلكم خير لكم يغفر لكم ذنوبكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بتا آية aaya ba fa mu jeexee. waaw man aaya bi boo ñu ko doon tënkal li nga xam ni moo mën a jëriñ ab jullit gannaaw gëm yàllaa ko yonentoom mooy fexe ba li ko yàlla dénk ci alalam mu dimbali ci ñim ci tane ndax loolu ci façon jihaad yi la bokk mm-hmm. waaw c'est ça mm-hmm. loolu baax yaa ngi mm-hmm. encouragé gars yi ñuy ñuy jàppalante ñuy loolu am na solo euh, sëñ Samba Sow ah la wax de waaw tabaarakallahu <laughs> dañuy ñëw rek ci comme ni mu ko waxee yaa ayyuhal ladina amanu bi mu indi hmm. dañuy indiwaat yaa ayyuhal ladina amanu hmm. parce que dañoo wax ne alquran sax yo déggee ñu ne yaa ayyuhal ladina amanu hmm. yow mi nga xam ne amee nga ngëm ci dara rek defal xerawlul sa nopp benn ndigal tege ca wala tere tegu ca comme nag dañuy indi foo xam ne dafay ñëw ci wàllu éducation ñu jëme ko suratu tahrim fi yàlla subhanahu wa taala ya wax yaa ayyuhal ladina amanu وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما شاء الله mu mel ni foofu yàlla li mu fiy jàngal mooy kilifa la ñuy jàngal kilifa nag bokkul ak ki mag ci ki kër gi maanaam ki nga xam ni dañ koo jëlal ci kër gi bokkul ak ki nekk kilifa kon bu yàlla subhanahu wa taala di wax responsabilité bi da koy delloo ci kilifa gi la wax mu ni na ngeen fexe ba fegal seen bopp safara boo déggee fegal leen seen bopp safara nag mooy fegal leen seen bopp lu leen mën a yóbbu safara ndax safara ëllëg la mais fexeel ba protéger sa bopp ba doo dem safara moom parce que yàlla mi bind safara sax bëggul ñu dem ca bëggul xeetu bi sallallahu alayhi dem ca kon fexeel ba protéger sa bopp ci safara li looy yóbbu safara ëllëg waaye fexeel tam protéger sa njaboot uh-huh. bul ni man rek dafa bari kilifa yoo nga xam ne dañuy jog jàkka fajar uh-huh. jàpp dem julli ji jàkka ja ñëwaat duñu seen soxna duñu yee seen benn doom te bu xëyee bu ndékkili naaja mu kaas ko ah. ni ko lan moo tax ndékkili naaj bu xale bi dee ci njàngam mu ni ko lan moo tax a tardé leen mhm. fegal leen seen bopp safara mhm. waaye ak seen njaboot ak seen njaboot o responsabilité la alhamdulilah njaboot gu yaay fexe ba def ci ñoom lu mhm. tax duñ dem safar voilà yàlla da koy laaj waaw da koy laaj macha allah loolu leer na leer na kon léegi euh, dem naa ci euh, demaat nañ ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa hadis Eh, ali mhm. lan nga ñu baax ci njàngalam yonent yàlla Muhammad waaw ba tey rek xam naa ñu dellu siwaat ci wàllu jikko mhm. ndax yonent bi dafa wax ni koor kat ak limi am solo yépp limi bari tuyaaba yépp mook naafi la nga xam ni ki def ak yendo wor yep yépp daraja jañuy am yep nit ki mën am ci jikkoom ju rafet mhm. muy wax ba wax ni innal abda la yabluha bi xusni xuluqihi darajata saayim alxaayim mhm. ba tax na kon lépp loo xam ne mën nañ koo gën a góorgóorlu def ko ijtihaad ci suñuy jikko rafet rek mhm. nañ ci gën a bàyyi xel mhm. waaw ndax jikko moom moy mooy mooy doomu aadama donc bi loolu la tënk waaw mu ne inna la yabluxa bi xusni xuluqihi darajata saayim alxaayim jaam bi dina yegg ci rafetuk jikkoom dara jay ku ak ku taxaw naafila. ah kon jikko ju rafet am na solo. am na solo trop. voilà mooy lépp. kon kii woor. ak mhm. yu mel noonu te amul jikko ju rafet. Mhm. c'est pas parce que kor gi dafa ñëw ngir tàggat ko pour jikkoom rafet. waaw laalakum tattaqun. ndax kazalika tam tanha anil fahshaay kama xaala. leer na mu ngi noonu. Samba Sow. Mhm. bismillah. waaw suñu aaya bi nu waxoon rek la indi xadis ba nga xam ne da koy. con maanaam tabaaraka confirmé mm-hmm. ci yonent bi sallallahu li wax ni kullukum raain mm-hmm. wa kullukum mas'ulun an mm-hmm. bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yéen ñëpp da ngeen nekk ay sàmm kon nag sàmm ma nekk ak ku nuy sàmm ku la allahu akbar ku yilifewul ñaar ñoo rek fi ku yilife ak ku ñu nu bi nag ne kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyatihi yéen ñëpp kenn ku ci nekk li muy sàmm dinañ ko laaj dañ ko ko laaj daal di tàmbale ci al imaamu raayin. imaam boobu nag buñ ko déggee ci ne imaam ba taxaw ca kanam jàkka ñu ne allahu akbar ñu ne allahu akbar rek day day tuuti day xat. al imaamu raain ki nga xam ne moo jiite société bi imaam la ci société ba dañ koy laaj liy xew ci société bi ëllëg boroom kër gi nekk ci këram des na ko laaj njabootam nan la leen yore woon soxna sii sëy ci kër gi dinañ ko laaj nu mu doon sëyee allahu akbar ci gàttal daal mhm. lu la yàlla dénk rek yow ma xiyam dana la ko laaj noo ko yore woon waaw gars yi bàyyi leen xel affaire boobu de ndekete même bitig boobu ñu la jox sax nga koy jaay yàlla dana ko laaj noo ko yore woon ndax parce que yow moom lañ joxam nga sàmm ko même yow moomu sa place boobu ci RTS di liggéey euh, yàlla dana laaj sa caméra bi noo ko yore woon dana laaj sa réalisation subhanallah dana bàyyi xel de inspecteur bu rëy baa ngoog voilà kon dem nañ ci euh, final ba rek wala ah non xaaral demaguñ ci final ba dañoo bëggoon nga fàttali ñu yow yow dundug hmm? Muhammadu Rasulullah hmm. lan moo ci gën a marqué sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad sallallahu alayhi dundam moom liñ ci marqué bari na lool hmm. waaye bokk na ca dëgëram ak dogom ak wakkiirloom ci yàlla gi mu amee woon dëgër dogu wakkiirlu ku wakkiirlu woon ku dëgër léegi bokk na ci misaal bi ñuy joxe ci loolu ci jamono ji nga xam ni mi ngi door a woote te màkka di ko xeex bi ñu defee seen mufaawadaat yooyu ñoom waa Quraysh def seen délégation ñëw ci Abu Talib waaw def nañ ko ñaari yoon ba ñett sax ndax wax nañ ni indil nañ ko benn xale ndax gis ni kat Seydina Muhammad xëy na xale yi ko topp ak jigéen ñi rafetaayam bee tax ñu dem tànn benn xale bu rafet indil ko Abu Talib ngir mu jox leen Muhammad Abu Talib bañ ni du ma leen jox sama doom ngeen di ko rey ngeen jox ma seen doom ma koy dundal mm-hmm. waaye ci ñaari yoon bi ñëwee eh, wala ca yoon bu bu njëkk ba xëy na ni ko yow Abu Talib inna Muhammad sa ibna inna ibna sax lañ ko wax naka sa doomu frère bi kat sabba alihatana wa dalla wa dallala abaana wa safiha ahlamana wax ko yañ ko wax yëpp ni ko nag imma an takufahu anna dafa directement ci olof voilà ni ko daal daal comme Muhammad dafa ñaw euh, daal di neenal suñu diina yi wax euh, maanaam deseel suñu xel yi léegi nag li ñu bëggoon mooy nga dox suñu diggante ak moom waaw nga maanaam nga tere ko li muy def wala boog nga bàyyi ñu jëflante ak moom bi ñu demee ba yëg ni kat xëy na Muhammad Abu Taalib deful ñoom li ñu bëggoon wala boog Seydina Muhammad continue daal ci wooteem ñu ñëwaat ñetteelu yoonu ban ñëwaatee defaat seen délégation ñoom Utba ak Shayba waaw léegi daal bu mujj bi bi Abu Taalib ñëwee xam ni affaire bi diis na ci moom mu wax ko ni ko yaa Muhammad euh, ni ko bi ah, mu ko wax biñ ko ko waxee Abu Talib yonent bi dani ko wallahi yaa ammu bi mu ko nee li nga li nga li nga may teg kat metti na wax ko ni ko tee ngaa bàyyi teg lépp ci suuf Seydina Muhammad daf ko ni yaa yaa wallahi yaa amma dañu ko bàyyi. bu ñu jëloon jant bi teg ko sama loxo ndeyjoor. jël weer bi teg ci sama loxo càmmoñ pour ma bàyyi li may def du tax ma bàyyi ko fekk ki ma ko sant digalu ma naa ko bàyyi. voilà waaw loolu jar naa fàttali. Mhm. yonent bi saa gars yi dañu doon ci ci ko yar. ci ko yar pour mu bàyyi. Mhm. Euh, téere yàlla bii muy jàngale. Mhm. mu ne leen su ngeen ma joxoon weer wi. ci sama ndeyjoor jox ma jant bi sama càmmoñ pour ma bàyyi. li may jàngale yàlla bii. du tax ma bàyyi mu ma ko voilà loolu lu jar a feeñal la. Mhm. dem naa ci sawaay rapidement mhm. yow. bu loo gën a waaw xam naa fi ñuy ñëw rek ndax yu dund yonent bi lépp mhm. géej la. te géej la goo xam ne amul tefes. xam naa kon lañ cay marqué dina bari waaye nag man la ma ca gën a marqué dem ngam demoon Taif. dem dem ngam demoon Taif. ndeysaan jekku mën a feyu baale. baale. loolu tabaarakallahu bokk na ci li ma dafa nekk jikko yu gër mi. mooy nga mën a ba pare jégal yonent bi la woon waaw garmi la woon parce que laaqa min assufaha maa la afuhu bihi wasaaqa adma wasaala damu lil qadami sallallahu alayhi wa sallam mhm. suñu mel mag dafa wax ni bi mu ñëwee taayif mhm. li ko ñi manqué ñi mhm. ñu matadi ñi parce que ay matadi ñu tudde matadi la parce que ku gëmul yonent bi gëmu yàlla matadi na ndax man lam yaudda muhammadan fii ilmi yi fal ilmu fii xasaaratun wa malaam kon li tax mu ñu daja naag ñooñu loo xam ne ëpp na ci sama gémé di ko tudd ëpp la ci sama gémmiñ ma tudd lam daje lam daje taayif mhm. waaye lan moo ca gën am solo mhm. mooy bi ko yàlla yebalee jibril ni ko mhm. bu ko neexoon tey ñaari montagne yu wër taayif muy ax sa bay ni nekk ñaari montagne yu am doole ma dajale leen ñoom ñaar ñu raafale dëkk bi ñëpp faatu yonent bi ni ko ixfir lahum fa innahum la yaalamun baal leen da leen a jéggulul layal leen ndax ñoom dañoo xamul waaw da leen a jéggulul layal leen jërëjëf macha allah yonent bi noonu la meloon gar mi dëgg la woon mhm. soo ko tooñee da lay baal mhm. soo ko daggee mhm. moo yow lay jok jokk soo ko xañee bu joxe yow lay njëkk a jox yooyu yooyu yooyu yooyu yooyu yooyu ndaanaan moo ko man sallallahu alayhi wa sallam euh, kon dem naa ci final bi rapidement alquran aaya boo ñuy tàggoo waaw aaya bi may tàggoo nag mooy aaya bi nga xam ni yàlla nga ko wàcce woon ngir xaatib ibnu abi baltaata ci tabis mooy bi sallallahu alayhi di waaj a def fatxu màkkaam te wax ni kat bu ñu feeñal secret bi xaatib jaar ci suuf bind leetar bi ko jibril wax yoo yonente bi mu xam ko mu digal Ali nag Zubayr pour ñu dabin ndaw sa ta ta aatib yi yóbbante woon bañ ko dabee ah daal di indi lettre bi parce que laaj nañ ko mu insister ñu ni ko xam na ni ki ñu wax du wax antu il faut nga jox ñu wala boog ñu am nu jëflante yow mm. mu génne ko ci lettre yi jox leen bi nga xamee ne ñëw na ñu xam ne xaatib la kat sallallahu alayhi wa ko ni ko loolu jaral lii mu ni ko ah, man kat du ñàkk bañ lislaam a tax waaye nag xëy na euh, bëggoon ñu protéger ma samay mbokk yu nekk maaka rek a taxoon ma def loolu. li ban léegi nag. biñ ko ci yeddee ak yi taxaw yëpp aaya bi mooy aaya bi jëkk ci suuratul wala ñaari aaya yi ca jëkk yaa amanu mhm. laa tattaxisu aduwwi wa aduwwakum awliyaa tulquuna ilayhim bil mawadda waaw leer na ba ca fin leer na sëñ waxtu ma mel ni moo xaw waaw tabaarakallahu xam naa bi leen di mhm. tàggatoo yàlla dafay ñëw ci insaan mhm. ci la ñuy ñëw rek ndax insaan bi insan yi mhm. parce que fu ko yàlla tudd ci alxuraan rek da ko ciy tegal aw xas mhm. waaye nag tey bin li tàggo mooy a insaana ayaxsabul insaanu an yutraka suda tabaarakallahu foofu xam naa leen tàggu mbokk yi rek muy aaya bi nga xam ne yàlla dafa wax ne ndax doomu aadama dafa jàpp ni am na lu ko protéger sama diggante moom ndax am na benn barrage boo xam ne jàpp nañu dox na sama diggante moom ba tax koo sañ a def loo xam ne yàlla nga ca teg bëtam mu ragal koo def ndax nit teg ci bëtam di def lu mu ragal nit teg ci bëtam. Mhm. ba pare bàyyiwul xel ci ni yàlla mi gën a rëy bët ñëpp tiim na loolu. Mhm. loolu mooy. Mhm. ñu bari dañoo ñeme yàlla ragal alkaati. ragal alkaati waaw. <laughs> te contraire moo war a am. dañoo war a ragal yàlla. boo ragal yàlla dootoo ragal kenn. déedéet alhamdulilah loolu leer na léegi nag question euh, concours kii bi culture générale bi. dama koy wax rek ku ko njëkk a tontu rek. mu mu kii ndax bu bëggee jox ku nekk bosam. Euh, kan moom ma mën a jox ci yéen. benn dëkk ci Europe. boo xam ne nii dee la commencé dëkk ci Europe bu commencé dee dëkk ci Europe hmm, boobu lay <laughs> du ma jox Danemark Danemark kon jëlal <laughs> Danemark bi moom ci Europe la bokk ah. <laughs> voilà kon léegi xam naa ni yàlla na yàlla dool jàmm li ma gis daal moo ñaari champion moo fi nekk. à part que nag que euh, Sow moo gën a njaxlaf. Mhm. muy présenté ak gën a. Mhm. voilà. <laughs> mooy sama professeur. voilà mu loolu mooy différence bi rek quoi. Mhm. Euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ñu leen di gërëm bu baax di leen ñaanal jàmm. amiin yàlla ngeen bokk ci kilifa diine yi. amiin amiin voilà yaa yaakaar ne yow mi toogoon foofu di déglu sam euh, jël nga sa ay notes yu bare ci. li mbokk yi feraf ah. bi ah. bi ku ci bëgg a bokk. mën nga ñëw woo ci 77 568 11 22